guléet ñii di gagné loto doon ay jigéen kese muy mbégte si kilifay LONASE yi joxe ñaari chèque yi toll si ñeenti fukki ak million ak juróom benn teg ko ci loxoy Abi Diallo ak kii di coroñang muy ñaar ñi gagné. dañuy am fadal ci biir plateau bi di joxe ay loo mais ay góor lañ ko daan joxe bii nag ay soxna dañ fi fekk ah mu nekk mbégte lool ci ñun mu ñuy encouragé aussi parce que. day woné né rek ah soxna yi ñu ngi intéressé wu de plus en plus ci li ñuy def lu LONASE di def ñu ngi leen ci encourager di encourager ñeneen ñi nga xamné ne aussi xeyna na bëgg nañu jouer pour que ñu tenter seen chance. ñaari jigéen yi gagné kenn ki fanwéri million ak benn ak lu tekk keneen ki fukki million ak juróom ak lu tekk bi ñu jotee chèque yi mbégte lañ ci am daal di jaajëfal kër di di LONASE. kontaan naa trop parce que mosuma xalaat ne un jour viendra que dina mos a lu toll nii daal. ma tout le temps maa ngi joué mais c'est la première fois. Mhm. oh am naa mbégte moom neex na trop. waa di wax parieur yi nañ dem jouer parce que ku dul tenter bon mooy loolu daal. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu seen partenaires yi ñoom ñëpp yéen wax jaaraama. Lonase tamit di leen delloo njukkal boole ci ak parieur yépp ci kóolute bi ñu am si ñoom. ñu ngi tamit profiter ci occasion bi remercier suñuy parieur parieur yi ak nu métti métti ñu ngi ak Lonase depuis boobu ba léegi te dañuy gën a yokk di leen xamal ne Lonase aussi mu ngi leen di préparer yeneen jeu yu gën a intéressant pour toujours rek seet ni ñu leen di satisfaire. kër gi di Lonase ci bëgg-bëggam gën a yombalal parieur yi fas na yenee indi coppite yu am solo lépp rek ngir mbégal yi di parieur yi. tàmbali nañu digital waaye 2021 bi dañ ciy gën a xuus di créer waat yeneen jeu nga xam ne lépp loo xamante ne tey boo demee suñuy point de vente ak suñuy kiosque di nga ko mën a jouer dinañ ko dugal ci biir digital bi nga xam ne foo munti nekk rek. ak sa appareil téléphone mën ngaa jouer gagner discrètement ba pare ñu fay sa xaalis discrètement nga mën koo retirer bu dee orange monnaie nga jouer nga retirer ko bu dee taf-taf bu dee beneen porte monnaie boo xam ne bu munti doon boo gañee sa xaalis dugaat discrètement nga xam ne mën nga ko retirer en toute discrétion LONASE di ñaax parieurs yi ñu gën a dàqi seen i wërsëg ci seen i produits rawatina loto bi ndax li ko tax a jóg rekk moo di yokkute ak xeex ndóol ak ñàkkum xëy.